liggéey bii junior loo mi nga junior loo mi nga xamante ne nii moo koy coordonné Serigne Touba képp képp képp képp wallaahi wallaahi bu fekkonte ne nii leneen la ci jublu heure bii bàyyi na ko bu yàgg defi leneen waaye dafa xam ni liggéey bii liggéey bu Serigne Touba teg loxoom la mu yor ko di ko doxal waaye nag mu ànd ceeg ay jàmbaar yu koy jàppale ñoo xam ne ñoo ne ci ginnaawam بوقت بيت بيعي ولست أدي غير alilmi wa gu am solo gile di mawaahibul akyaas comme ni ñu ko baaxoo di defee ci at mu nekk ca pàkk bu sell ba di xel koom ren gile di seen juróom-benneelu édition bu ñuy togg ay xéwal lu toll si 99 mbana si ay plan yu wuute di ko séddale si biir daara yi nekkee si diwaanu xel koom aljuma ñaar fukki fan ak juróom si weeru novembre si lañu door la géey bu am solo أخزى سوى مليكي لأنه جل يغنيني وينجي itam ñu koy jox kenn si membre yi bokk si kuréel gi di Mawahibul ak yaa ren jile ñu ngi fii si Touba Mbal ci kër Soxna Fatma Diop fi lañ doon amale liggéey bu am solo bile lu toll si fukki nag ak ñeent ak benn giléem la ñu fas yéene lawetal ngir mu dem si jàmbaar yi nekk si wa sa Touba وعلي لمن عجيت عن لأنفسهم عز المشاكين أو كيف يأخذني حب العتم إلى جوار من دوهم أو دو سيأتيني إن كنت لوائي وزيني وهو المعين الذي لا شيء يعجزه وهو المكون ما سيدك بيني إن زادت إلى إن كان ذا عجل أو ذا أدل له يبدأ إلهين يا ما يلوم فلا تكسر ونا عزيلي إذ لست من فقدي دنيا بمعزوني إن كان بيزون في أدمي فذاك عيب في سن ليس يحصيني déggante non non dañuy déggante waat ci kanam ma ko xam nga àjjuma ji bett nga ma mais damay dem làmb téléphone non non làmb téléphone bi lu disponible lii ñëw gi dafa am parce que da ngay dégg mais xamoo woon dayo bi daal danañ la wax mais ku teg bët moom da nga yor benn in kana e biyazo don fi oda mimo e noo ngi delloo sant yàlla bu baax nag ndax daaw moo nu mayoon nu fekke ko nu taxawal liggéey bu toll nii nu ñaanoon ko it bu déwénee nu fekkewaat ko mu may ñu ko ci coobareem ci mbaaxam ci sañ-samam ñu ngi ko ci sant bu baax moom boroom bi di ko gërëm te di ko ñaanit nu fekkewaat déwén te weesu ko wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax ci liggéey bi ndax nun moom xanaa tur wi la rek waaye doonuñu ci dara lépp yéen la Mm, rawatina ki nga xam ne moo ne ci bopp bi muy Moustapha Lo Junior te ànd ak ñëpp mbir mun a ñàkk bopp waaye lii ki ko xool xam ne du liggéeyu kenn nit ku ko xool xam ne du jëfi kenn nit kon képp ku ci jàpp mbaa nga amoon yéene jàpp ci rek ak noo ci jàppee nag toog fa nga toog sax na lii lu rafet la wala lu baax la sax ci jàppee la bokk te borom bi tax nga di ko def ak sëriñ bi gis na ko kon ñoo ngi sant ñëpp mënuñoo lim ñépp am na ñoo xam ne sax. mën naa ne Moustapha xamu leen wala keneen wala keneen ndax jëf yi fu nekk lay jaar ñi nga xam ne it yàlla dogal na yëkkati nañ seen alal ak seen xalaat rafet indi ci waaye ñi nga xam ne ñoo koy sottil mooy ñi fi nekk ñii ak ñeneen ñi ñëw mooy ñuy togg ñu koy topp toog ñi def nangam ba bañ koy jébbale kenn ku ci nekk jàppal ne lu sa morom def rek def nga ci lu ko ëpp mbaa def nga ci lu mu toll ndax mbirum mbooloo moo mel noonu kon ñoo ngi sant ñëpp te di leen gërëm. te di xam na daal képp koo xam ne xalaat bi dong rafet lu nga ko waxuma la nag sa alal mbaa sa jëf mbaa sa jot mbaa sa leneen nga def ko ci rek yàlla na sunu borom fay lu kawe sa njort ci barkeb sëriñ bi te rafet nañ ci njort bu baax ndax defuñ ko benn at defuñ ko ñaari at boo gisee nungu ñoo weesu limu 99 bi nag lu bari dañ ko umpale euh, bi ñuy mujjee togg te togguñu 99 dañoo defoon 92 bi ñu demee ma leeral ko Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mu ne boo léegi def leen ko 99 mooy turu Saliou te loolu ndigal la boobu ba léegi nag ñu ngi sàmmante ak moom yàlla da ci def ak jàppandal nag gis ngeen tawfeex yi ni mu bare macha allah lépp Serigne bi la rek lépp Serigne bi la. Moustapha nag moom mënuñu mënuñu mënuñu ko fay ndax wax dëgg yàlla lii ba mu koy xalaat boobu egsi wutoon fii waaye xaritam yeeg àndandoom yeeg ñëpp kenn ku nekk jàpp ci. ba mu egsi fii tey moom boo ko bu ko xalaatee it wala mu koy coordonné it fii mu si tey xam nañ ne jëfam kese egsi woo fi kon képp ku ci jàpp ni ma koy waxoon nag ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm te xam ne lii moom xaw ma jëf juy takk waaye jii du ci bokk fi mu jëm am naa yaqin ne moom képp ku fa dugal sa jëf ak lu mu mën a doon sunu borom dana ko nangu te dana ko ful rawatina nag nga jëmee ko ci bernde. ndax kat sunu royukaay ci ci ci yoonu sëriñ Touba yi mu Cheikh Ibra kenn ku nekk xam na ne daan na wax ne ndab dabe kenn ku nekk dégg na ko te xam na ne moom bi muy ñëw ci yàlla seedal loolu bi mu ñëw ci sëñ bi amoon na ñu ko fi jiitu ci sëñ bi waaye tey kenn mënul tudd sëñ Touba te tudd Cheikh Ibra kon dafa dabe la mu nag mooy dabe nag lii lii bokk na ci muy bernde kon nañu rafet njort te gën a góorgóorlu gën a jox suñu bopp sëñ bi. alal àdduna ji bu ñu ko yàlla jox kat pour ñu liggéeyal sëriñ bi moo tax. gannaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi kuréel gu am solo ji di Mawahibou Akyas ci la ñu liggéey bi taal mbana yi fas yéene fanaane togg ba asamaaw seet. yaa zal jalaali yaa mutahali yaa xayra waali ajib nu ay yaa zal المبتهل يا خير والي أجب نوعي صل وسلم على المكلم والدوي عجم وزن على رسوله أبي الوجود لنيل سولي أمر أي صلي دواما وزد سلاما واذكر خلاما لي وبنائي يا ذا الغدا يا ذا الفدا خلي سعادة اقتداء سدني اقتداء yaakaaroon naa li ngay teg dina mais yow soo tegee ba teg 40 mën a ngay teg mais bii comme ñi ma suuf na jël añu daara yi ila jafaa tayyib masaa tayyib xanaa yaa zal wujud kulli واجعل وجودي فوق العناء عبلي ولادا قل المرادا يا من أفادا بلا قراء عبلي ولادا قل المرادا يا من أفاد بلا جنايه ñaar fukki fan ak juróom-benn si weeru novembre bi ñu xëyee ci suba si ci la ñu gaare camion yàpp si xéewal yi wutali sa pàkk bu sell ba di Xelkom ànd ak seen jëwrin ju ràññeeku ji di Moustapha safi amaane wasit تميها فلتكفي جوها لمن يغاي أنقذ يالي من الضلال وبالعلال خلي الصلاة خني عتاب xulil kitaaba waqbal mataaba yaa sastiwaayi yaa xayra rabbi xaymu rabbi tayabta qalbi ba'da tijaayi salli wa sallim على المتمم وكل عازم بلا اندعاء صلي وسلم على المتمم وكل عازم بلا اندعاء صلي وسلم على المتمم وكل عاسم بلا انتهاء أوي مكان يوبوة الفبس بندكاي تجوية سنسالي كتدك تقكو أوي مكان يوبوة الفبس بندكاي te jooyeti sëñ saali ku tedd ka tagg ko muy di su ngeen dégloo ma jaaleeti leen koy ka doon doomi sëñ Tuuba te mbootam mu doon ko ma del seeti jooy saa waaja saab sang saab sëriñ boom nga boo xel koom ka jaw jooy ba xottiku jugal way fees sab xol barem bat ba sax leneen lu dul moom amul fum dem ci sab xol te sant ko wayal waajate yow mi nga nekk ku ku bon ku ñàkk boroomam boo yeboo sax ci bëgg ko danaa way ka tax man mi ma doon nit te doon ku yiw defal ndànk ak tey ji danaa wax ba dajjiku danga war a sant ndax mba mu mel ni moom nga nekk di ab dongam li lee màgg seetlu ko damay maasiyal tey yoonu ñaareel sama sëriñ borom jannatul mahwa turam ku ne xam na ko awaay Mbàkke yaa wéetal nun nun ngi wéeta wéet sa dem gile mbas kuy julli loolu yëg na ko dañoo mujj mel ni lii yaayam ja mes mu dëkke di jooy kenn mun ba mu bàyyi ko sëñ saali woow baay sëñ saali woow baay sëñ ci ñun ñi teew na ndey xanaa misaal rek la ko def daal ci xamle ko mu def convoi bu mucc ayib déparé fii si 28 si buntu kër Serigne Thierno Diouf Lambaye jaar fii si rond-point ancien garage Dakar jaar tali bu bees dem yoonu Daaru Rahman def direction ak Xelkom Serigne Saliou woy koog noonu fu nuy jëm fu mel ni moom gannaawam du am moo xan mu joojale jàpp ko bisam booba mooy ab bis budul fel ci xel yi mukk keroog ko dajel muy ca kaw yàlla xam na ko demam géeg demum yonen ba ñoo bokk menn mbir bamba tey ji daal la ñuy ñàkk ko nasaaba ya fàddoo woon ba fàttini sun borom lanuy jaamu dub yonen abubakir xamle ko nasaaba ya faddoon ba fàtte ni sun borom lanuy jaamu dub yonen abubakir xamle ko keroog xew na maa gis nit yu saalit di jooy ca kaw moo waaju naa gëm leen boom bi te tudd ko moo am waaju naa toppal nga naanu gëm gëmun fenn tey ji yàlla kenn du fi sant ko sëriñ Abdu neene na saaja mu ji di ñaar ba jenn ji toogal bamba jee dem mu wiitu ko sëriñ Abdu neene na saaja mu ji di ñaar ba jenn ji toogal bamba jee dem mu wiitu ko sëriñ xabbaan sëriñ Fallu kiimaan dem na xabbaana woo mu ya nekkoon fa moom naa leen nan ngeen moy ta fonk ko sëriñ Fallu kiimaan dem na xabbaana woomu it ya nekk fan fa moom naa leen nan ngeen moy ta Fallu kiimaan dem na xanaa xamu leen man mi bu sa ndaw gi del si woon xanaa xamu leen man mi bu sa ndaw gi del si woon damay def ni yéen tey bi seen waaji topp ko xanaa xamu leen man mi bu sa ndaw gi del si woon damay def ni yéen tey bi waaji topp ko sëriñ Abdu Xaadir ne dee siyaar ko ndax dafay maye am pédéef dem amoon nga mu dolli ko sëñ Abdou Khadi ne dee leen siyaar ko ndax dafay maye Pastef ndem amoon nga mu dolli ko sëñ Abdou ne saa jëmmu ji di ñaar ba jenn ji toogal Bamba jee dem mu wiitu ko gaa yi nan sant moom mi tax tey am xéewalu gaay nan sant Seex Saaliwu moom tax tey am xéewalu gaay nan sant Seex Saaliwu moom tax tey am xéewalu kija jeewalu moonu tee xayni ay yeefa moonu tee jooy bana way walu moonu tee xayni ay yeefa moonu tee jooy bana way walu masta mooy lii di yoon waw masta tooñ masta juum fa walo mooy xiyaasun lana qutbuna mooy mbégum gaayi nan jébbulo sant nan sëñ bu mel nii nga mel yombuloo sant nan sant nan sant naa sëñ bu mel nii nga mel yombuloo waa tey xaay nguur gi it fal leen semmaloo wan Seex Bamba mi diine moo ko ñor jéngulo noppi geek maandu geek sàmm gi noppi gi teewula yewlo tami yak jàngale ak yar ci diine yaa dey gaayilan ya ñaalo ajuma bis bu màgg ba gannaaw fajar la sang ba julli ba doo weddu suba na mak jublu penku ba boobee la bu yàlla yabal malaaka ya ma ne mu jël gu sell gam xamul gu ni moom ca dend ba malaaka maa ngay naaw di wey waa asamaan ya naa ko cey leer nga àndal moo këy xanaa imaam bu màgg ba guddi ga la soo siiw guddi ga nag la doosiw xibaar ba tas ci mépp réew ma mel ni doguma ta yeew maag bépp donga bum fi ba ñun ñëpp mujj mel ni liir boo xam ni ak dundam ci weer la tollu nday jaxay ko mu yuuxu ek ta ba julli di ñëpp a ngi sangeem muy di ñëpp mu juluum ñeneen ñi sax ñëpp a ngi yeem sa gi ak li fi ba ñi a ngi jooy ñi a ngi tëb adduna bépp maase rëb jël ya jib si kar jib ku nekk naan way sang ba koo gis mu naa la doy na waar du mën a sax wax wax ju leer xolam ba fees xelam ma réer mu dal di jàll buntu ba nanu xalam ngën ji mbindeef ay bay saal dellu xalam man ji mbindeef kon xëy na nun nu mën a giif nan dal te ba sun dënn ba waa ahlu barsax kenn desul ñëpp nga jug di tatagal borom njuul ak njàppundal Seex Saaliwun xalifa ba daa mel ni maa ngi lay jineer ay bay saal daa ni maa ngi lay jineer ngay saafonte ngeen jinaar ak xaadimam bu doy ba waar ci àjjanay firdawsi ba ña ngi lay jotal seeni ngërëm te naa la yow ndam li nga liggéey rek doy na ndam lislaam bi jël nga raaya ba waxal kanam tàndar liggéeyal Serigne Touba moom rek moo fi des ci liggéey moom rek la nit mën a nekk doo ko rëccu ba ilaa yawmi diin te bala ngaa xam njariñam nga faatu bañ di bañ suul la ñoom fukki simili ak juróom-benn moo bootu si fukki waxtu ak ñaar kuréel gu am solo gii di Mawahibul Akyas yegg si ci pàkk bu sell bi di xel Xelkom bi ñu yegg see itam ñu jublu si liggéey bu am solo bi te muy wër daara yi commencé distribuer xéewal yi si mboolem daara yi nekkee si diwaanu Xelkom abdullahi xun bisila xamdan lillahi dogal dikkaat na bur yàlla mooy buur nguuram di mooy nguur waxam jamoor dogal ba wey na kuy joor joorul kuy daanu daanul kuy jooy xaacul jooy dëggu jot na dem de bu doon jaar di naam sans waaye dem du jaas yonen ba dem na noxin ma dundoon junni bu tooloon adama sancoon adduna dem la yeneen yedikoon fii la romboon ñoom nañu tolloon ñoom ñépp dem na ko julli woon ngeen laaj ko julli woon ngeen Cheikh laaj borom da ko wuy ji dem naa a tee faat faat waxtu wey kii daal di Serigne Saliou di Serigne Saliou kii daal di Serigne meesu ko ka faw xarijaal ci dun bi dem naa sëriñ saali woow woow ka faw xarijaal ci dun sëriñ saali ngay liggéeyal xidmaal sëriñ Touba lañ ci jublu wut ay bernde indi ko xel Xelkom jaar ci daara yi yéen yaakaar naa yéen ñi fi nekk yëpp gis ngeen liggéey bi nu mu demee amul folklore euh, folklore amul puukare dañuy dem ci daara bu ñu laaj leen lan la ñuy buñ ne bu ñu ko ne mbooloo mi soxla nañ ñeenti mën a ñu wàccee leen ñeenti mën a bu ñu gisee ne mbooloo mi soxla nañ ñett ñu wàccee leen ñett suñu gisee ne soxla nañ juróom ñu wàccee leen juróom suñu paree dañuy daal di continuer demaat ci yeneen daara loolu nag su suñu ko mënee am rek c'est grâce à euh, Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xamante ne nii liggéeyam amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am yaakaar naa liggéey bi gis nañ ne at mu ñëw lépp dafay gën a yokk moo xam muy mbooloo mi moo xam muy berne bi waaye tamit moo xam muy pasteef bi ci taalibe Serigne Touba yi di wane ndax gis nañ ne ku ci ñëw ren bu déwénee ne dangay yokk yokk googu nag mooy yokk xéewal yii nga xamante ne nii duñu ko sante kenn kenn kenn ku du Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké Xaadimu Rasuul mi nga xamante ne nii euh, ñun génération bii nii yaakaar naa moom lañ gën a miin ci njabootu Serigne Touba yi wax dëgg yàlla bari na lu ñu jàpp ci yoon wi bari na bëgg-bëgg bu ñu am ci Serigne Touba c'est grâce à Serigne Saliou Mbacké loolu nag mënuñu ko cee fay lii ñuy def ak us néew dañuy jéem a nat na bi rek ngir dab ci ngërëmam waaye Serigne Saliou mënuñu koo fay ci Serigne Touba ndax ñun moom Serigne Touba rek lañ gëm moom rek lañ am te moom rek lañ jàpp te moom rek la ñuy liggéeyal ba tax na képp ku ñu gis koo xamante ne nii njort nañ ne suñ la liggéeyalee am ngërëmul Serigne Touba dinañ la liggéeyal te loolu moo valable ci Serigne Saliou Serigne Saliou lu ko waaye defal Serigne Touba nga ko defal direct amul jàdd jàdd amul làq-làq loolu ñu ñëpp xam nañ ko. fa góor ña daa romb na fa ak taaram na ci seen ba jal dem xam-xam ba jooy am baax ga jooy am tag ga jooy sëriñ saaliwu dem jumaa ji mooy jooy kaamil ba mooy jooy am dëkk bee jooy ku yiw ka dem la farata yaay jooy am sunna yaay jooy mën doo ba ngay jooy sa waaja dem la makka da ngay jooy madina day jooy lislaam a ngay jooy sëriñ Saalimu Dalam xel koom da koy jooy ñaaroo da koy jooy juróor a ngay jooy seen waaja dem laa tëm ba day jooy xayam ga day jooy fu ñit ku baax jooy kuy ko dem la mbooleem daara ba ñu egg itam ñu fësal seen mbégte rafetlu bu baax a baax liggéey bu am solo bii kuréel gii di Mawahibou Akyas di taxawu at mu jot wante ñaanal leen itam yokkute bu baax a baax tax na nun nu gëm yàggam fi ak wérug cërëm ak wérug cërëm sëriñ saali woo mu tàmbalee nu gën a gëm mu daldi dem te yëggagul di jullit joole ma sunu sang bi dem na bu na buñ gisee te sëriñ saaliw yowmal xiyaam yowmal xiyaam la deyoo xamal jooy naa ko jooyu xol yu faar faar man ñàkk naa ñàkk naa rusufaar man ñàkk naa man ñàkk naa rusufaar sëriñ saali woo ñàkk naa rusufaar nga yite yi di ñàkk nañ ko mag ñi gasa aka ñàkk nañ fu ñu jëleeti sëriñ saali woo waaja daa ba nee ka tam tamal señor sama mbokk taalibe yëpp daal ñëw na bu baax yéegi naa ma ñëw ma ande ji bare bare ñëw dañ maa bëgg bàyyi daam sama xol bi sedd na guy ñëw kontaan naa bu baax daal jërëjëf daal ñëpp ñëw ànd yow liggéey daal doy na ma sax barke sëñ Sali sama xol bi sedd na guy biñ jógee seen xel teew la ñu biñ jógee wàcc na waaye nag maag yow ko tàmbali woon moom bëggut yi bëggut yi jërëjëf jërëjëf loo sama xol bi sedd na guy yàlla la xiir ci Serigne Touba daal yàlla la yàlla bàyyi njaboot ak Serigne Touba gi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama xol bi sedd na guy daal jërëjëf jërëjëf jërëjëf mais ñoom ñëpp dañ na seen place pas seen oto daw ay junniy kilomètre mais ngir daw fii rek barkeem ci liggéey bi ren nag da ngeen di ko fasalal 99 yan ñu sëñ Cheikh Saliou defoon mais dañuy daw nag séddale ko xaar moo ci teg. ci teg mooy di ko sant. xaar ne ñu ngi lay sant. gërëm di ko ñaanal suñu mbàkke. mais di la la ñaanal. bu ñu gëstoo gis Serigne Saliou mi. mais bu ñu gëstoo gis sëñ Saliou balaa ñu di defar Serigne jaante loxoy sëñ Saliou. soxna Fatou Sidi. nee soxna maam Fatou Sidi moom sëñ Abdoulaye. nekk sëtub Serigne Saliou. nee nekk sëtub Serigne Saliou. jàmbaar ju réew mépp naw. nekk soxna maam Fatou Sidi nekk jàmbaar ju ñëpp naw. jigéen ju mat góor. nekk jigéen ju mat góor moom maam Fatou Sidi. dal na ci mooy bi. nee sunu xol dal na ci moomi la kaas. minicar moom Serigne Saliou. nee minicar mu Serigne Saliou. doon moom at yu bari fii ci tool. doon moom at yu bari fii ci tool. Omar Omar. minicar di jàmbaar ju mat. yàlla aar yéen waa Mbacké. yàlla na leen yàlla aar yéen waa Mbacké. abdullahi xul bismillah hamdan lillahi dogal di kaat na bur yàlla mooy buur nguuram di mooy nguur waxam ja moor dogal ba wey na kuy joor joorul kuy daanu daanul kuy jooy xaacul jooy dëgg jot na dem de bu doon jaam ma di naam saam waaye dem du jaas yonen ba dem na noxin ma dundoon junni bu tooroon adama sañcoon adduna dem la yeneen ya dikkoon fii lañu romboon ñoom nañu tolloon ñoom ñépp dem naay ka julli woon ngeen Cheikh laaj ka julli woon ngeen Cheikh laaj borom da koo laaj ji dem naay adduna bee ku yóbbu konti te bañ a tee faat kii daal di sëriñ saaliw di sëriñ saaliw kii di sëriñ saaliw meesu ko jaal kii daal di sëriñ kii daal di sëriñ saaliw meesu ko jaal ka faw xari jaal ci dun bi dem naa sëriñ saaliw ka faw xari bi dem naa di gént doy ko jigéen ñi nag gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi mën nañ ne wax dëgg yàlla liggéey bi ni ma gis muy doxe yéen ci sax man góor ñi waaw kon wax dëgg yàlla liggéey bi macha allah kawe na lool te loolu bu amee yi tamit war nañoo am quelques noms yu ñu war a cité donte sax ku lim juum te liggéey bi tamit ñëpp a ci yem ki ci def dërëm ak ki ci def un milliard ñoom ñëpp ci bokk yem ñun ñëpp ñoom ñëpp a yem ci ñun ñun pas-pas bi rek la ñuy xool waaye wax dëgg yàlla euh, soxna maam Faty Sidi mm-hmm. ak soxna Fatma mm-hmm. wax dëgg yàlla gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi wax dëgg yàlla ba liggéey bi tàmbalee ba léegi lépp lu ñu mas a am bépp jot buñ mas a am bépp yitte buñ mas a am def nañ ko ci liggéey bi ba mu jeex tàkk loolu nag mm-hmm. defaluñ ko kenn seen bopp lañ ko defal ndax Serigne Touba moom ku ko liggéeyal moom moo lay fayal boppam moom du la boole kenn moom moo lay fayal boppam yàlla na leen Serigne Touba fay yéen jigéen ñi kontaan nañ ci yéen bu baax a lu baax képp ku koy def defaloo ko kenn sa bopp koy defal mu ngi mel ni nag waxam ne wuñ jël tijji mm-hmm. ku ne loo fa sànni ëllëg bu ko la koy fekkaat mm-hmm. bul ko gis bul ko naw bul ko yëkk jàppal ni Serigne Touba la ñuy liggéeyal te mooy jëmm joo xam ne ku ko lebar ker ku ne mu fay la guddi ñun nag li ñuy wax nekk ay taalibe yu xeebu rek dañ cee am yëg-yëg ak luñ ci gis suñu bët moo tax tey ñu koy wax ndax bañ ko commencé ba tey chaque année ñi ngi ñëw mais at mu ñëw bu dellu si rek ñun yëg nañ ñun yokkute ñun ci suñu côté te gëm nañu ni ñu yokkoo gëm nañu ñeneen ñi ñëpp tamit noonu la ñu yokkoo kon Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am nag géej la nag noo ci duggee rek noonu ngay tooyee boo fa yemale say tànk say tànkay ngay tooy boo sóoboo ba tooy xëpp nag dooñee kenn sa àdduna ñu ne fas nañ ci yéene sóobu ñu ne jigéen ñi ñu àndal ak góor ñi di suñu kilifa mooy bu Akyaas yamul ci xel Xelcom kese bëri na ay activités yu muy def xëy na bii dafay activité principale bi maanaam dafay dafay dafay dafay dafay dafay activité principale bi maanaam day bi ci gën a mag mm-hmm. day bi ci gën a fës mm-hmm. waaye ndawa Mawahibou Akyas bari na ay liggéey yu dugal loxoom lépp loo xamante ne nii gis na ko muy lu jëm ci liggéeyal Serigne Touba Mawahibou Akyas ma nga ca loolu moom yaakaar naa gis nañ ko gisati ko moo xam muy ci bisu xasida yi moo xam muy ci bisu sikar yi moo xam muy ci bis yi Seex Mouhamadou Mountakha woote yëpp gis nañ ndawal Mawahibou Akyas dugal ci loxoom ànd kook yeneen i kuréel loolu moom Mawahibou Akyas daal Serigne Touba lay liggéeyal bépp liggéey bu ñu ko woo boo xamante ne nii liggéeyal Serigne Touba la mu dem ca ba jeex lépp luñ ko woo loo xam ne nag Serigne Touba nekku ca bu soobee yàlla kenn du ko ci gis. fa góor ña daa jaar romb na fa ak taaram na ci seen biir ba jàll dem xam-xam ba laay jooy am baax ga laay jooy am tab ga laay jooy sëriñ saaliwu demal jumaa ji mooy jooy kaamil ba mooy jooy am dëkk bee jooy ku yiw ka dem la farata yaay jooy am sunna yaay jooy mën doo ba ngay jooy sa waaja dem la makka da ngay jooy madina day jooy lislaam a ngay jooy sëriñ Saalimu Dalaam xel koom da koy jooy ñaaroo da koy jooy juróor a ngay jooy seen dem la tëm ba day jooy xayam ga day jooy ku nit ku baax jooy kuy ko dem la sëriñ mu ñeenti waxtu ci ngoon tegal tuuti si la ñu yeggal bu am solo bi ci daara bi di daaru tansi gannaaw loolu itam ñenn ci jàmbaar yi taxawu liggéey bu am solo bi jëmale ci taxawaayu kuréel gi ay objectif waaye sant itam mbooleem mbàmbur yi nekk ci biir kuréel gi di Mawahibul Akyaas jooy naa ko yooyu xol yu faar a man ñàkk naa biñ koy def boobu daayira amagul turu daayira amagul waaye biñ koy def ba ci yàgg Serigne Bass moom Serigne Abdoul Khadir bi ma ne dañuy dox ci biir Touba sant Serigne Touba sol ay yëre yu weex tàll yëkkati nataalu Serigne Touba ci la ma wax ne ma tudde leen ko kon Mawahibou Akyaas di ci liggéeyal Serigne Touba mais añi xel kom moo jiitu Mawahibou Akyaas kon ñoo ngi ci sixième édition mbokk yi nga gis yaakaar naa su dee am nañu ci yokkit bëriwul. am na ñu des am na ñoo xam ne gisoo leen waaye ñii ñooy Mawahibou Akyas mbaana yi sa sëñ Baye Modou Yali wax na ko léegi première année bi euh, dix lañ amoon yéene def ko far am juróom wala juróom benn murid ko yëg ne ñu mujj def ko vingt cinq euh, biñ koy def vingt cinq def ko quarante cinq biñ ko defee quarante cinq def ko soixante cinq biñ ko defee soixante cinq def ko quatre vingt deux mbana ci la na nekk toq ci nopp Serigne Cheikh moom Serigne Salif ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér mu ne dem leen ngeen jël limum ñaari neuf yi muy quatre vingt dix téeméer bu manqué benn dee leen ko togg di ko yóbbu daanañ ko toggee juróom-ñaari façon palaa yu bokkul mais ren ak euh, temps bi muy jël ñu yemale ko ci ñeent palaa amoon na tufe amoon na petit pois amoon na ma ma ma li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy ceeb yàpp ak mbaxal. daara yi indi nañ sept daara daara yoo ci yu ci nekk woote nañ fa euh, dans une semaine ne leen kat bisub samedi bi dimbali leen ñu ko ndonga ya fa nekk barkeeloo ci ñam wi ñuy togg ñu nangul ñu ko doon xaar añ bi ñu xëyee am na camion boo xam ne dafa chargé ba fees 36 mbana la chargé moo dem ci daara yi peut-être yéen sax am na euh, xëy na oto yu boobu gisu leen ko euh, oto yi ñu àndaloon ñun nag moo nekkoon ci dal yi ci dal yi la ñu yendu yéen a ko gisandoo comme ni ñu koy defee at mu jot tasaare ko ci biir dal yi amul xàjj ak seen. am na kuréel goo xam ne ñu ngi leen di sant muy Lamp Fall leeral Touba muy ndaw ñoo xamante ne nii gis nga leen ci wàllum yéegal ak wàccee. Euh, ñaari commission lañ leen organiser ñoom ñoo yor wàllum yéegal mi wàllum wàcce mi fépp fu ñu àgg dañuy àgg sotti mbanam bi jëlaat ko tegaat ko ci kaw oto yi ñi ci nekk daal damaa jàpp ne ñu bokki pas-pas lañ Baye Modou wax na ko léegi jigéen ñi démb dama leen di xool ba ci yàgg ñeen ni ma yërëm leen ndax barki démb ba suñ joon yàlla tey démb ak tey moom xam naa ne de barki démb ak démb xam naa ne gëmmuñu bët loolu nag lu ko gën a metti amul at mu njëkk bi sëriñ bi daf maa dimbali ma jóge bitim réew yor xaalis di waxtaan ak sama benn xarit ne ko damay dem def fukki mbana boobu la ma jàppoon mooy dinaa génne million ci sama poos def ko ba may ñëw di def fukki yi ñi ko yëg te bëgg lu baax ne ma déet saay gënoo ñëw bëgg lu baax yóbbaale ñu taxoon ñu def vingt cinq léegi nag suñ jógee ci vingt cinq di dem bay def quatre vingt kenn ku nekk di jaayante daayira bi suñ tool nii damaa xam damay bëgg a yaafus ndax gars yi romb nañ ma bu yàgg yàgg maa ko sosoon mais romb nañ ma bu yàgg ci jëf kon su may toog fii di lim ñi ciy jëf damay juum kon du mat waaye ay murit yu gëm sëriñ Touba bëgg ko bëgg Serigne Saliou lool jàpp ne astuut si leen yàlla suñ borom may war nañ cee mën a liggéeyal Serigne Saliou ñooñu ñooy toog du ma def ab su ma defee appel bi ba pare pare naa ci ku ci jëf yaa woote sa téléphone Moussa sama addiya ngi noonu de yóbbaale ma defaa defaaleel ma ko ci mais appel la ñuy def wax programme bi ne nii lañ koy defee fii lañ koy defee ba sàngam lañ pare nañ ci. day wër ndax liñ ci jublu woon mooy que ni rek ñu xam ne kenn moomu ko yëfi ndawi Touba la doon nañ ko an bu njëkk mi fi ma dëkk lañ ko defee ñaari at yi ci topp ñu yóbboon ko kër Serigne Saliou Serigne Alaj Baara an mi ci topp soxna maam Fatou Sidi ñu koy nuyu bu baax baay moo Modou wax na ko mën naa ne jigéen ñëpp yóbbaale na leen géew nam cay doxee moo yéeme pas-pas bam cay doxee ak lam cay def du ma toog di ko wax. waaye ñu ngi koy ñaanal ndax daa jaay njureelam euh, euh, jënd ko taalibe euh, ñaari at yi at mu ci nekk su naan saso naa bis bi mooy njëkk a saso danaa ma saso nangam kon moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér. gëm sëriñ bi te di jëf ci sëriñ bi am na ñoo xam ne dañ naa ma saay sama barkeelu bu ko doomu adama dégg de lii de maa ko barkeeloo waaye xam nga ñooñ dañuy def te sëriñ bi tax ñooñu dañuy def te yàlla tax ni ci jëf laa wax xaw ma nu ñu toll. dama ne su ñu defee appel bi parce que ñoom ñoo ma woo ma wuyu ñu ne ma sañ bi lii daa baax soo koy defete nañ koy yëg moo tax su ñuy def appel bi ñu yëgle ko ña sa daan ànd ñun démb ak bërki démb soo demee ñoom ngay dégg ci appel bi suñ defee appel bi ba pare pare nañ ci ku ñëw gaa ñi dem ku ñëwut gaa ñi dem kon xéewal yuñ fi jëlee yool buñ fi jëlee tuyaaba juñ fi jëli yàlla nañ ko bokk ak képp ku dib jullit waaye képp ku dib taalibe dañuy toog rek suñ nee jàpp nañ bàcc mi bis sàngam soxna yi sasu góor ñi sasu ñun du teg di cotiser ci de soxna maam Fatimee daaw doon na ko soññee waaye dañuy toog rek moom mu daanub jël na moroomam daanub jël keneen daanub jël noonu lañ koy jëfe ba jëf ji mat daaw ñu ngi woon ci fukki xàbbaan ak ñett ren ñu ñëw ci fukki xàbbaan ak ak ñeent akub giléem kon loolu yokkute la ak i ginaar boole ci liggéeyal sëriñ bi moo amul budget démb bi ma ñëwee fekk ñu séddale ndawal gi ba pare ab jal des fa dama ne leen nañ ko sotti waat ci biir cin yi ndax sëñ bi duñ ko daaneelal ay xabbaan ba pare naa dañuy desalug ndawal loolu amut nañ ko sotti ci cin yi jërë ngeen jëf sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaanal yàlla suñ borom gars yi gën a waaw gën a pëseef bi na yokk waaw oto oto def ndànk yoon def ndànk dal ndànk ni ñu ànde woon ñëw yàlla nañ ko ànde delloowaat ca Touba ca Serigne Saliou Mbacké ñoo ngi ñaanal ñëpp